ñu ñëwaat nag ci mbirum euh, élection yi nga xam ne moom lañ jëm ni élection présidentielle. bilan président Macky Sall ku nekk xam na ne bilan far na ko programme aussi kenn ku ne xam na ko te président Macky Sall lim ñu dig lim bëgg def ak ñun ñu yéene kenn ku ne xam na ne xajul ci benn mandat kon dañuy koy joxaat beneen mandat mu yeggale ko di seere nag Cheikh Abdou moom it liggéey bu rafet bu muy liggéey ànd kook ñi nga xam ne ñoom la ko war a ànd ci tuubaa gépp ñun ñëpp ñu ànd nekk benn. te incha allah fii ak ñaari fan di ngeen ñu gis ñun ñi responsable leader yi nga xam ne ñoo nekk Touba yëpp ñu génn pour wane ne ñun ñëpp dañoo nekk terrain bi di liggéey ñi ngi ci proximité yi ñi ngi ci euh, nouveau découpage bu bees bi ndax kenn ku ne xam ne dañoo delloo si ay dañoo daggaat euh, zone yu bari dañ ko daggaat dëkk yu bari amuñu woon ay bureau de vote ci ñoom léegi dañu am ay bureau de vote loolu tamit nekk liggéey bu bees boo xam ne bii dëkk bi xamuñu ko ñu war ko war cee communiquer loolu moo metti liggéey bi bi yoon ndax kenn ku nekk xam na ne bureau yu bees yi ndax nit ñi dañoo toog rek naan am nañ ci carte d'identité yu bees yi fekk du loolu carte d'identité yu bees yooyu da ko war a delloo ji nga jëlaat sa carte d'identité beneen bi la defaatal muy fa nga war a fa am sa bureau de vote ba ngay war a voter ndax damay jël exemple ci Mbusoobe gii nga xam ne ñu ngi waroon a voter al hasard lañ daan voter si ak arrondissement Ndam tey Mbusoobe ña ngay voter biir Mbusoobe Sicap Gueye am na bureau de vote bu bees ña ngi fay voter Umul Xuraa am na ko euh, ak ñen mu ma ko fi limee lim dinaa juum

mu gañe balaa 18 heures Touba mu gañe ko ndax nag am na mérite pour gañe Touba liggéey na ko fi jëf na ko fi te wax dëgg yàlla ñii nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi def nañ fi loo ñi ngi ci coono sonn coono boo xam ne bi ñëpp dañoo war a am ndam. sëñ la ci hmm? euh, dëgg la du ma wax sax ne zone zone bi amoon na coow waaye yàlla def na ci ndox mu sedd. ndax am na ay bonne volonté yoo xam ne peut-être réeroo la woon rek xam nga euh, réeroo amul ñàkk waxtaan a am buñ communiqué wul ñi war a communiqué buñ communiqué wul rek erreur mën naa am peut-être manque de communication la woon moo amoon ci biir te yàlla def na ci sutura ndax sëriñ bi mu ngi ci doon dox sëñ du Mbacke Bara Dolly mi ngi ci doon dox ñu baax ñëpp a ngi ci doon dox ba yàlla def na ci jàmm ba wax dëgg yàlla dinañ reprendre activités yi ñi nga xam ne ci biir dëkk ndax zone bi rek moo doxul woon zone yëpp a ngi dox ndax yéen ñii xam nga ne fan yëpp yëndalu leen fanaanu leen chaque jour yéen a ngi ci dem kon nag ñun sunu zone bi tamit bu à partir de demain dinañ leen invité ngeen ñëw fa xool ñu ñun ñëpp autour d'une table ñu toog waxtaan démarrer suñuy activité ni ñu ko war a defee comme ni ko ñëpp di defee ñu am ndam incha allah di ko ñaan yàlla di ko ñaan yonent ci barke yonent bu tedd bi barke Cheikh Ahmad Bamba bi nga xam ne moom dëkk bi ak sëtam yi nga xam ne ñu ngi dëgg ci sonn te dara taxul ndax buñ dee saxablu mii buy sonn kenn ku ne xam na ne ñun taxuñu muy sonn boppam taxul muy sonn taalibe yi ñoo tax muy sonn te nag ma leen di fàttali ne intellectuel de haut niveau la ba jàng jotee dafa jàngi xam li ñëpp xam kon nag. da wàññi boo gis ci benn lay tàmbale lii ñun dañu war a ñun waa Touba tam leneen am na buñ dañu jàppale président Macky Sall ba mu gagné mais nag li ci des nag ñun waa tubaa dinañ xool nag nan la ñuy jàppale doomi Touba yi nag am dara indi ko ci dëkk bi ñu bokk ko waa dëkk bi parce que dañ ko mérité am nañ ay étudiants yu jàngi ba ñëw moom mii dafa jàngi ba ñëw yor ay diplôme ah bëgg nañ nag li nga xam ne moo am ci yenn dëkk yi am Touba gi parce que nag le président Macky Sall dañ ko jàppale ba mu am deuxième ku def nag say devoir nag di nga laaj say droit am nañ nag droit yoo xam ne yii bu élection yi passé jàmm daañ ko laaj bëgg nañ ci ministre yi bëgg nañ ci directeur société yi bëgg nañ ci yi muy nommé yëpp nomination yëpp lu dëkk décret di joxe rek soxla nañ ko daañ ko voteel nag massivement ndax loolu mooy sunu coono bi ñu nekk di gërëm ñëpp di sant ñëpp